ci bis bi lee dama bëggoon ñi nga xam ni ñooy kilifa yi fi nekk ki ma dendal nii moo fi toogal le ministre Thierno Alassane Sall di doomu Thiès di kilifa yónnee ko fi ngir mu fekke bis bi am na xam naa ni yeneen kilifa yu fi nekk walla yu fi yebal ay nit ñoom ñëpp ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay léegi nag balay naaj wi di tàng li nu bëggoon e def nañ ko ba pare démb wàcce nañu kaamil ñaanal kii di Yaay Sarr Diagne léegi itam ci bureau bi waxtaan nañu ay mbokkam sant ko rafetlu liggéeyam ndax amoon na yar amoon na teggin teggin jaambure na te administration boo ci amee qualité yooyu santal yàlla kon mbokkam yi am nañu loo xam ni war na sedd seen xol kii di manufacture des arts décoratifs itam am nañu loo xam ni sedd na seen xol ci soxna soosu ñu dëddu directeur général mi ngi koy gërëm personnel bi di ko gërëm conseil d'administration bi di ko gërëm ministre de la culture monsieur Mbagnick Ndiaye di ko gërëm ndax Mbañik Njaay maa ko fi taxawal tey dafa demoon bitim réew mais su loon loolu moom newoon na ma dina ñëw kon li ñu mën a def rek léegi mooy ñu def nit ñi dañuy wax toujours une minute de silence man damay préférer toujours une minute de prière ñu ja donc ñu taxaw def une minute de prière dollee ko kii nga xam ni moo tax moom la ñu tudde bis bile ngir yàlla yërëm ko yàlla baal ko te bàyyi xéewal ak yiw ci njaboot gi mu bàyyi bàyyi ko ci ñun ñëpp ñu fi nekk bismillah li ngeen li ngeen def lu rëy la ci famille bi parce que tey bu Tivaouane yëpp buñ ko yëgoon sax man maanaam amaana duñ fi xaj parce kenn ku nekk séq naa yow loo xam si teraanga la ni mel fii ba ngeen koy wax nu ko raw la mel Tivaouane ak ci famille bi moo tax ñëpp tey ñëw taxaw fi parce ñun bay sama xol dafa fees man parce que bu ma gisee ñu doon liggéey li ñu def coono bi ñu daj tey lépp ndax moom xam nga dese luñ ko dara daal parce que lii lu rëy la ci famille bi daal vraiment parce que wane ngeen seen digganteeg moom vraiment tey diisoon na trop mais mujj na oyof quoi parce que mbir moom bu diisee nga am ñoo ko bokkal ñu métti dara ko jooyle la ko rek mu mu oyof ci yow man nag dama amul habitude di wax ci mbooloo ko parce ma nekkee yi man du ma wax sax presque damay jël lépp jox voilà mais na leen leer daal kontaan nañ bu baax quoi yal leen yàlla fay comme leen féete woon yàlla na leen fay yàlla féete koy sant bu baax parce que jàppale Ndeye tey lii lépp mën naa ni moom la ak ak inspecteur parce que bañ ñëwee kër ga wax nañ fa wax rafet joo xam ne tey famille bi tey ci lañ leen jàppe ba léegi parce que nee leen man en tout cas man Khalifa relation bi am seen diggante ak Aysar man du ko dagg bu ngeen ma xaar ma xamu dinaa fii ñëw di ko feddali ak yéen parce que seex ngeen ko moom parce que vraiment gore ngeen quoi wan leen ngor ba dem mais aussi yéen itam ñu a ngeen quoi kontaan nañ bu baax daal famille bépp kontaan nañ voilà c'est de Dakar et venir assister à cette randonnée pédestre avec Madame Gueye voilà donc euh, Madame mes, mes hommages nous vous remercions d'avoir bien voulu marcher avec nous et ça prouve que vous êtes avec votre mari et vous êtes avec les manufactures sénégalaises nous remercions l'ensemble des membres du conseil d'administration ils sont pas tous là mais il y en a quelques-uns monsieur Ba voilà monsieur Ba donc le conseil d'administration est bien représenté nous remercions les retraités des manufactures qui ont bien voulu assister à cette randonnée ils ont marché avec nous même les tatas les mères Aïssata Sy ont fait le circuit avec nous c'est important nous remercions l'ensemble du personnel des manufactures ils se sont bien mobilisés pour venir assister à cette randonnée pédestre. Mais nous ne pouvons pas euh, nous quitter sans remercier les forces de sécurité qui bien voulu euh, nous qui, ont, qui permis de faire cette randonnée dans les meilleures conditions possibles. Nous remercions la, les sapeurs-pompiers, la police, mais nous remercions aussi les militaires, euh, le comme zone qui a vraiment mobilisé les troupes pour, pour venir assister à, ce 50, à, à cette euh, randonnée pédestre. Nous, remercions l'ensemble des chefs du service, euh, dont le président pédestre va permettre de, de mieux nous organiser pour aller vers d'autres randonnées, ici au niveau des manufactures, mais aussi avec l'amicale des randonneurs de Thiès. Je pense qu'il faudrait que vous pensiez à adhérer à cette amicale la qui est en train de dérouler un programme de randonnée pédestre au courant de l'année. En tout cas, pour nous, aux manufactures, c'est important. Nous pensons que nous aurons, en tout cas, nous allons nous organiser pour venir vers vous. Parce que nous, nous sommes ici aux manufactures, nous exerçons un métier qui est très difficile, qui demande beaucoup d'exercice et qui nécessite hein, euh, un entretien physique. Et je crois que euh, cette randonnée pédestre va nous permettre de mieux nous organiser pour aller vers euh, l'amicale des randonneurs de Thiès. Mais euh, je pense que aujourd'hui, cette randonnée, elle a été dédiée à Madame Yaïssa Diagne. Euh, nous vous remercions pour ces moments-là que vous avez euh, voulu donner à la mémoire de Madame Diagne. Une heure de temps de marche, avec Madame Diagne, je pense que c'est important. Euh, donc, euh, pour tout cela, nous vous remercions, Monsieur le délégué de quartier, du quartier 10e, nous remercions le quartier de 10e, euh, euh, les, les, femmes du, du plan social, euh, l'ASC 10e et l'ASC Khaïgui. Ouais. Donc, ici, le président Boubacar est là. Donc, toute cette mobilisation, je pense qu'elle est à capitaliser. Et enfin, je, je, remercie tout le monde, hein. je, je, sans oublier personne. Avant qu'il ne termine, ouais.